ca kaw Canada dafay traversé océan Atlantique mu jaar diggante Maroc ak Espagne moo doon andi taw bi ca Tanja jaar ci kaw euh, Constantina Annaba Alger jaar ci kaw Tunisie Safakis euh, Benzerte daal di jaar ci kaw Libye Sibrata Zawiya Tripoli Sirta Benghazi jaar ci kaw Égypte Askandria dem ba Dimyat dem ba boori Jidda moorum ngelaw loola léegi amatul doole dañ ma defoon rek dama doon recherche ci njaboot ci ci ngelaw loole rek ma nekk ci biir bato nag maa ngi yore samay jumelle maa ngi seet waaye dama jékki-jékki ma naa di gis ci biir géej gi loo xam ne gaal la ah, nit ñaa ay nit a ci biir dañoo dem ba xaw a weex di ndeke def nañu semaine lekkuñu li yëram lu na naanuñu ndeke mbeex mi lañ di naan ndoxab xorom boo koy naan xam nga dee moo ciy tegu ma ne commandant bato bi na wëlbati dëgëra nangam ba mu ko wëlbatee bañ ñu gisee rek ñu kontaan te na mucc na ñoom ñoom ñu bokk jóg bañ bokkee jóg rek daal na xaar rek dëkk gaal bu poids bi dem na benn côté noonu la jullootaay ñoom ñoom ñu laf ci biir ñii seen yaay yi ñu ngi naan sama doom mu ngi Europe yónneewu ma fekk sa doom jën lekk na ko bu yàgg bu leen xiirtal gone yi Euh, ci dem ci géej gi bu leen xiirtal gone yi waaw waaw moo tax ma naan nguur gi lii muy joxe naan ay lan ay bourse bourse sos familial waaw buñ ko jëndoon def ko ay château d'eau def ay toolu noor xale yi di ci liggéey di am kenn dem bitim réew déedéet waaye di ko ay jàkka ay këru gan nañ ko def ay usine xale yi liggéey waaw seeta bu njëkk sàcc buy sàcc paaka la yore wala jaasi wala yàpp tey xale yi fetal la ñu sàccee yóbbu nga leen arme ba xam ne ni ñuy taalee fetal ah ñu ñëw joxoo leen liggéey yaayam feebar amul ordonnance baayam feebar amul ordonnance ah waxuma ne sàcc baax na de waaye xool du ko mën a muñ bu la yàlla mooy lu njub dëgg-dëgg da nga raasaatu wala nga xaasaatu suñuy nguur ñoo doy waar alal gi réew mi di génne buñ ko delloo ci réew mi waaw waaw Sénégal li mu am ci or Afrique yëpp soowu jant Sénégal moo ci gën a rafet or waaye kenn ci ñun soxnaam du ko takk ana or bi Sénégal am na fer fii ci fàll melu te ñu gas ko li ñuy lebi ci tubaab bi am na fii ah waaw ñun foog nañ ne doo am dara buñ la fayee ngay jeex na nga daw dem dénkaane sa bopp ah ñu gis sans éligé di seeti président France ñi ngi dem Maison Blanche di seet président Amérique ñi ñi ngi dem Kremlin di seet président bu Union euh, Russie jaaru ko la ñi wuti fofu ay jullé mi ngi fii nañu gor yoon ci Allah Muhammad sallallahu alayhi Wasallam, waaw waaw comme eh, mi ngi bëgg ñël njël ci la ko songé songee yëngal la ca xewoon Suraqata ndax dafa dégg ñu na makk ku andi bop Seydina Muhammad muy dund wala muy dee waaw dañ la jot ci mari gëléem ci la ko dàqee ba gis Seydina Muhammad Abubakar eh yonent bi am nañ problème am nañu mbir de kii de ñun moo tax muy ñëw mu ne ko ah nañ ko bàyyee yàlla yàlla ñu digal nañu gàddaay nañ ko bàyyee yàlla waaw waaw ba mu ñëwee ba jegeñ ah, yàlla yebal Jibril ne ko jox naa ndigal suuf si lu Muhammad bëgg na ko def ci la ne Muhammad ci la ne suuf si jël ko ci la ko suuf si wàññi bi ci oomam mu jéggal waaw yonent bi ko. mu dem bay bëgg a xalaat xalaat ñu gëléem mu bettaat ko suuf ci woon ko ba jindi gëm ba ñettal bi yoon suuf ci ñëw ba ci baatam ak baatu fasam yoon di nga fa ngay dee ci la tàggee Seydina muhammad diko kañ diko bakk ba Seydina jéggal ko yotaal yi mu yorewoon mu jox ko Seydina muhammad moom mu dellu ba mu demee mu ne man gisuma ko ah, te mu dem yegg na fa mu jëm ah? Ah, gis na ko de ah waaw waaw gis na ko de ba mu ba mu ñëwee ba jegeñ Medina Ah, dëkk bu ñu dee Quba ah, waaw Quba ah, fa la yonte yàlla Muhammad dalee waaw ci bani Amru bun Salim waaw mu def fa ay jamono jóge foofale jëm ci bani waaw Salim bun Awfu kële Amru bun Awfu kële Salim bun Awfu ñoo bokk ndee baay waaw ci xur boobale fa la ko yàlla joxe ndigal waaw ne ko na jiite juma sallallahu alayhi wa sallam fekk musoon la yebal Medina ku leen di jàngal téere yàlla bi te mooy Mus'ab bun Umayr waaw moo njëkk doon sëriñ daara ca Medina bara yoon ci yàlla Muhammad di ñëw waaw fekk waa Medina ba ñu yëgee ne Muhammad mi ngi ñëw waaw dañuy xel njël di ko teeru yore ay catu tàndarma ay drapeau bu dee benn naaj bu tàng buñ ko gis ñu delluwaat seen kër waaw te mooy ñaari famille waaw mooy bani awsu ah bani xasaraj seen ñaari maam ñoo bokk ndeeg bàyyi waaw seen seen waaw waaw seen bàyyi mooy xaarisata bun saalaba seen yaay euh, mooy xayla bintu kaahil moo ñu di am na aw xayla doomi xayla yi waaw euh, bés bu nekk dañuy teeru yonent yi benn naaj delloo leen bu ëllëgee ñu dellu siwaat ndeysaan benn bés ñu teeru Seydina Muhammad teeru ko waaw waaw waaw benn naaj bi saas lool waaw benn naaj bi saas lool waaw ñu jékki-jékki benn yahud nekk ci kaw tàndarmaam daal seen lu leer ci àll bi Ah, mu xam ne leeraay bi du jinne mukk leeraay bi du njuuma du kondorom du rab du kiyaafi lii ah, sangu waay njëkk ak waay mujj yi la te mooy Muhammad xayru xalqillah waaw waaw moo tax màggal ko de moo jara màggal moo tax xayrul xadim ah, Mawlana Cheikh Ahmadou mi ngi naan taazimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bi izdiyaadil minnati li muxlisin ah, yëgale leen ah, ok jërëjëf loolu laa bëggoon yal na fay leen ndeke yéen a ngi bàyyi xel ci li may wax alhamdulilahi rabbil mu ne éey yéen bari yéen awsu yéen xasraj am na xay seen cër day ñoo na xaza nasibukum waaw ah, waaw seen cër gi ne xaza xazukum ci la ñu génne di ko dalal góor ñaa ngi yor ay paaka waaw di fo góor ñaa ngi yore ay jaasi ñii ay gobor ñii ay yat waaw ñu ngay tëb di kontaan di gàttum Seydina Muhammad waaw naan tala albadru aleyna min saniyatil wadaayi aha yàggalal wajaba shukru aleyna mada lillahi daayi ayyuha almabsuus fiina jiita bil amri muhtaayi jiita sharafta almadina marhaban yaa xayra daayi waaw lii la ma ngi noonu wax ne xale yi topp leen tala al nuurul mubiin نور المرسلين ساقه الله إلينا رحمة للعالمين waaw man kenn ku nekk yonent baa ngi romb sa buntu kër kenn ku nekk bu ko yonent bi wàcc sa kër nga doon jaatigeem waaw am benn ay jongoma ay njegemaar ay jànq yu rafet yu njool waaw waaw génn yore seen paradis ñu yëngeel ay leefa seen kuddu seen cinwaar yi waaw seen kuddu yi ñu ngay dóor boole نحن جوار من بني ندان يا حبذا محمد من المنجان نحن جوار من بني ندان يا حبذا محمد من جار نحن جوار نحن جوار من بني نجار يا حبذا محمد من جار نور عظيم نحن جوار من جنين نجار يا حبذا محمد من جار ey yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kaay kër gii de mooy sa kër samaam bu jigéen te mooy salma waaw ci kër gii la jóge woon dem sëyi màkka ci sa maam abdul mutalib waaw ci sa maam hashim Ah, mu abdul muttalib ah, muhammad bin abdullahi bin abdul muttalib bin hashim bin abdul manaf samam ah, soxnaam fii la ko jëlee won hashim kon yaay abdul muttalib ci walu bi lañu sul ji muhammad mi ñoo sa mbokk dereti mbokk yëngu na kon buñu fayé mbokk ni nga def ba jubok mbokk ñeneen boko ko nga jubok say mbokk mbokk ku ko jokk yalla jokk la waye mbokk ko dag yalla dag la Euh, am na kër yu bëri nag li leen jaxase tey mooy ñu nekk gannaaw la ñu am amoo ko nga bugg jaxase sa kër nga bugg jaxase seen kër nga ngemb ku fa nekk waaye yal yàlla dimbale ñu yaa rabbi waaw ñu ne ko kaay ñun ñooy sa néegu ndeyu maam Mouhamed kaay ndax nu ñu dey jawaar waaw ah, waaw ay jéebéet lañu jawaar ay njegemaar lañu jawaar ay jongoma lañu ñu dey jawaar ay xale yu jigéen lañu min bani najaar jóge ci giitam najaar waaw ah, yaa xabaza cay eh, baax fii la mën a yem mbaax fii la mun a yem yiw fii la mun a yem waaw rafet taar jekk fii la mun a yem waaw dëkkaal ak Muhammad dara gënu ko de waaw waaw kenn ku nekk bugg a jël bagaasam kon dañ koy ajaale foofu ñu nodd ñu julli ma del siwaat ñu ngay ah, yàlla yàlla fay yàlla yàlla bu yàlla tas yaakaar waaw waaw dal leen ba ñu julli njël ak jàmm ak salaam waaw waaw buñ jullee njël bi del si waat waaw ñu dañoo daal di soog a def ñaan ñaan koo xam ne rafet nañ joxtu yàlla du delloo loxoy abaran bu leen yàkkamti loo am te amoo jàmm dem ko jaay wutaat jàmm yàlla yàlla may ñu jàmm yaa rabbi allahumma salli ala sayyidina muhammadil faatih lima ughliq wal xaatim lima sabaqa naasiril haqqi bil haqqi wal haadi ilaa siraatikal mustaqiim wa ala aalihi haqqa qadrihi wa miqdaarihil aziim تنام الليل ضحاكك باطله سمج وتنام الليل سمج الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ومن يوم على محمد صلى الله عليه وسلم ba mu ñëwee dugg Medina waaw kër gu ma romb rek yaa ngi mébét yàlla Muhammad ñoo wàcc ci yow waaw kenn ko nekk mi ngi bëgg a Muhammad nekk ganam waaw yow Muhammad kaay waaw kër gi day ñun mun nañu gan loo soxla yàgg ji nga àndal ñu ngi fii ndékki bu doy waaw waaw ndékki bu doy day mu ngi fi añ gu doy mu ngi fii reer gu doy mu ngi fii waaw yow Muhammad sallallahu alayhi lépp loo soxla ci ak teraanga ñun am nañ ko waaw waaw waaw ah, fi am dëkkuwaay da fi am dalluwaay ah, kenn ku nekk waaw ah, jigéen yooyu la te mooy bani najaar waaw ñoom ñu koy tatagal ñu koy sargal waaw ñu ngi koy ñaanal ak dal jàmm waaw yow ne itruk xalluha waaw zaruha waaw leen gëléem gi te mooy xaswa ah fa innaha maamura fa innaha la maamura gëléem bi de ci ndigal lay dox bàyyi leen gëléem bu mu wéy gëléem bi ci ndigal lay dox de waaw waaw bàyyi leen gëléem bi gëléem bi di dem di dem am fu mu yegg mu daal di buur daal di wàcc tëdd ci suuf waaye tàllalul baatam kon gëléem paregul gëléem bi jógaat waafaat waaw waaye tàllalul baatam waaw yonent bi toog ci ko di muñ sallallahu alayhi wa mu dellu fa mu waafoon daal di waaf waaw ah, ba mu buuree waaw ah, ba mu waafee waaw ah, ci la tàllalee baatam daal di bëmb yonent bi ne waaw xaala huwal masjidu fii mooy jàkka ji waaw fii mooy makaan bi mooy xaaree yàlla fii mooy bàmmeel bi ndeysaan yonent baa ngi wane bàmmeelam balaa muy def dara li doon adama ko bàyyi xel de kenn ku nekk sa biir dund war ngaa tey sa loxo doom ne ko doom waaw bu ma nekkatul àddina fii laa bëgg nga tëral ma tëral ma sama wetu papa wala tëral ma sama wetu yaay wala yóbbu ma sama wetu sëriñ waaw lii yëpp ngir gàdd nga wu yiw rek lislaam bu diinay gàdd nga bu rafet la waaye lislaam doowul diinay gàftalu de waaw waaw nga wane sa bàmmeel fi nga bëgg boo mënatul wax ñu waxal la nga wax waaw fi nga bëgg boo mënul jóg ñu jógal la nga teel a wax fii nga xam ne doo mën a sottandiku bu ñu sottindiku la ba nga mënee sottandiku nga bartale nit ki dafay bartale boppam mag ñu baax ñiy toog amul benn mag bu dul kenn ku nekk boo ubbee walisam da nga fay fekk càngaayam waaw mu dagg càngaayam waaw bu dee góor ñett malaan doy na ci waaw am na ñu def juróomi malaan tubéy ak mbubb ak mbaxana ak kaala ak jàllaba bi ah, am na ñuy def ñetti rek waaw waaw ñett laa gën a miin ngir loolu lañ defaloon Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw yonent ñett malaan lañ ko defaloon malaan ba amuloon tubéy amuloon mbubb amuloon kaala amuloon mbaxana de waaw benn sër bi dañ koo muur waaw ah, mu jóge ci eh, dënnam ba yegg ci óomam subhanallah waaw ah, beneen bi ñu muur ko mu jóge ci baatam waaw waaw ba ci ba ci dajooram ñetteel bi nag moo ko jëlee ci kawaru boppam ba ci ay ndëggam sallallahu alayhi wa sallam mu di ko laxas am na lu ñuy def ci bàmmeel yi waaw ah, nañ ko bàyyi boo wàccee nit ci biir bàmmeel ba nga jël ay xeer teg ci biiram ba mu fees balaa muy xaweeku di dëpp tegaatal biir ci ndiggam ba mu fees balaa muy xaweeku di di jaaxaan waaw defal ko njeganaay njeganaay boobu du pajaas de njeganaay boobu du éponge njeganaay boobu du mbuyaa mbuy déedéet njeganaay boobu suuf lay doon de te yow yàlla bàyyi nga sa éponge bu nooy ba te yaa ngi suuf si waaw bàyyi nga sa mbajjo suuf si fii ma bëgg a wax mooy boo yóbbu néew sëg ya mun ngaa yeew baaraamu loxo yi yu tànk yu loxo waaye boo dee ba yegg ci biir na ko tekki ñu bari dañuy ragal néew ragal bàmmeel dañ lay bàyyi ñu ngi lay yow ci biir waaw rafetul de boo yóbbu nit sëg yi boo ko sangee ba mu set waaw ñaari baaraamu loxo dijjam da ngeen di yow bu ndeejoor bu càmmoñ ngay daal di dajale daal di leen yeew waaw tànk yi tamit ñaari baaraam lu dijj yi waaw nga yeew leen waaw doo ko laxas waaye boo dee ba tëral ko ci biir bàmmeel teg nga ay xeer ci biiram ba mu fees nga xam ne dootul xaaweeku dëpp nga teg ay xii ay xeer ci ndiggam ba nga xam ne dootul xaaweeku jaaxaan nga defal ko njeganaay waaw njeganaay boobu suuf lay doon ay xeer lay doon ndaw njeganaay bu dëgër ndaw njeganaay bu métti ndaw yéetaay ndaw lëndëm ndaw diis na nga oyofal càngaayam ba nga gis kanamam waaw nga bàyyi ko nga nga wàccee ko nga fëgg kanamam bee càngaay bi dootul sonal kanam bi waaw nga soog a sotti suuf منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى دقي جيخ قام منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى sotti ko suuf waaw man day feel gënaluma sama loxo laay def rek waaw waaw ngir yërmande du dara waaye kii maam moom ñoo àndoon ci dund àddina ma jël peel tey di ko sotti mënuma ko man ma ko def waaw euh, bu ma la jiitoo ci sa bàmmeel ñaanal la cëral la waaw euh, du ma def xeer suuf su nooy laay def waaw euh, di sotti ndànk ndànk ba ma xam ne kenn mënu laa gisate ma soog a génn waaye du bàyyi ñu lay gis di la sotti suuf waaw kenn yërëm na na lool borom dafay laccax mel ni mburu bu tooy mburu poncé bu tooy waaw nekkatul général déedéet nekkatul président de la république nekkatul premier ministre nekkatul député nekkatul ambassadeur nekkatul attache de cabinet nekkatul directeur de cabinet nekkatul chef protocole nekkatul ingénieur nekkatul gouverneur nekkatul avocat nekkatul juge nekkatul procureur taalibe bi mu doon naan bu ma yàlla waxati bu taxee buntu këram ne laara biraana mu dàqaleen taalibe boobu tey mooy laxas kaala dugg ci noor bu génnee ko doomam toog ci biti waaw ñu ne paa bi damaa yëram yëramul de dafa ragal balaa mu leen laal ñu ko bi taxu ci moom waaw même bu mi nga dee dañ koy saraxe dootuñ ko solati paa bi man bu ma gisee ngum mi sama yaram dafay daw déedéet dafa foog ne bu ko solee rek dafa léegi mu fekki la waaw yow may fiirul maru tàmmal nañ laa daw te yow ma xiyaama dikkagul seet taalibi bi nga doon xeet tey moo lay tëral ci banque balankaar bi waaw dugal witteen sa bët ba mu fees tepp ndax dootoo gisati jël huitaine dugal sa nopp ba mu fees nga dootoo déggati jël sa paxu bakkan sotti huitaine ba mu fees dootoo nokkati mukk waaw jël huitaine saw ko sa gémmiñ ba mu fees waaw waaw waaw dootoo dootoo lekkati dootoo waxati dootoo reeti waaw waaw jël sa poqataan def ci huitaine ba mu fees teg daal di bës sa biir bu fekkee am na saw bu des saw ba daal di génn daal di bës sa naq bu fekkee am na cabine bu des cabine bi génn balaa ñu la defal càngaay nga yàq càngaay ga lii du lépp du wuppoon lii man danaa ci jaar yéen dangeen ci jaar da ngeen ma sang dinaa leen sang kon nañu am ak sago waaw lu muy rëy rëy nañu ànd ak daal rek fu ñu fu ñaaral ba jaru ko sa njëlbeen toqantu maniw dong la waaw mani sobe la fu mu la laal nga xaas ko sa mujjuwaay waaw waaw sàmm jiwaay law la medd rek la waaw ay na min ka mafxara ngay puukare waaw boo juddoo buñ la foog nga dee ci biir de deretu gisin nit ku baax moo lay jegeñ sang la ba nga set laxas la ñu soog a ne xayoo xayoo xayoo wasin na lan la góor la lan la jigéen la ay seex la waaw bés bi ngay génn àddina yaa ngi sukuraat waaw waaw yaa ngi sukuraat de wallahi yaa ngi sukuraat sa bët yi dootoo ko xefati yëpp saabu la li doon xeflee bët dem na waaw waaw dootoo mun a waxati li doon yëngal la mañ dem na dootoo mun a déggati yaa ngi ne xam la doon déggloon nopp dem na bu ñu yëkkatee sa loxo mun a yàcc li doon yëkkati loxo dem na bu ñu yëkkatee sa tànk nga ne yasar waaw li ko doon yëkkati dem na sa biir daa di nuux buñ ci degee kopp du daanu ngir jeex na tàkk dootoo lekkati sa jabar ji dootoo ko jabaroo léegi keneen jël ko sa jëkkër ji dootoo fogg sa tànk jaar ci ginnaaw léegi mu suul la jël keneen tëral ko sa kaw lal sa oto bi moo la yóbbu bàmmeele mu ñëw say doom doom lu ko di ci dugal ay jabar di caaxaan ñoom sa tool bi léegi keneen béy ko sa bureau bi léegi ñu def beneen ministre waaw yow alkaati bi yow gendarme bi waaw waaw tenue bi dootoo ko solo te mu beere bi dootoo ko aj mukk yow magistrat yow avocat robb bi doo tokk solo ci mukk yow président ah wallahi wallahi wallahi summa wallahi billahi tallahi cortège dootu la yóbbooti mukk waaw waaw jeexal nga tàkk mbuutu mbaay la teg la ci kaw balankaar nga jaaxam ci buntu jumaa ji waaw ah, ñëpp taxaw yow dem nga yaa tëdd waaw ah, asamaan si kenn du wax reppeen ko waaw ñu tàmbale di seede nag waaw kenn ku nekk di xuur baatam waaw waaw bu fekkee bàyyi nga ay eh, jabar yu rafet de bés bu njëkk la ñu tàmbalee jaxal waaw bul ma fàtte sa jëkkër yi sama xarit la woon dañ doon jaawat la ay mbubb waxul dëgg waaw dafa bëgg rek fuñ ko ñooñalee ay ganaar yàlla yàlla mosal ci góor ñooñu waaw waaw waaw nii waaw ah, ñu ngi la jëmee di la yóbbu bàmmeel ya waaw ya, waaw bu ñu demee am ku ci biiru waaw waaw ndeysaan ñu dugal ay kaala say ndigg teg ay kaala sa tànk teg say kaala di la yor ci biir bàmmeel eh, bàmmeel di wax ak yow yam ya, na aadama aadama taqdumu ala ma qaddamtu min amalin in kaana xayran fa xayrun wa in kaana charan fa charun ey ey ey yow eh, doomi aadama tey day yaa ngi ñëw ci li nga jiitaloon boo jiitaloon lu baax ah ah boo jiitaloon lu baax tey nga am fa lu baax boo jiital lu bon doy nga fekk lu ñu ngi la tëral wàcc léeguñ la buñ la wàccalee xeer waaw waaw waaw mu ne kunta fawqa zahri daahikan wa machiyan wal yawma ci batni waaw hazinan wa bakiya doomi aadama démb dee yàlla sama kaw ngay ree di kekkant di tëb waaw waaw Euh, botti naa ko galgal naa ko daanal naa ko tey day euh, malakul mooti botti na la tey malakul mooti busulu na la waaw euh, tey malakul mooti waaw daaneel na la de kunta nekkoon nga foo ko saxi sama kaw ndigg daal kan di di caaxaan ma ngay dox waaw tey nag yaa sama biir xasiinam yaa naqar waaw baa ngay aji jooy buñ la sallaxee suuf ba fëgg seen loxo bàmmel na la yab na aadama dafanuuka ah dafanuuka dafanuuka suul nañ la ah bàmmeel mooy wax ak nit ki de suul nañ la wan sarafu anka waaw ah, dem nañ la bàyyi fii de waaw al yow ma bésu tey ah bàyyi nga say jabar doom bàyyi nga sët bàyyi nga sëtaat bàyyi nga sa jëkkër bàyyi nga say waaw goro ah, bi waaw ah, bàyyi nga sa conseil technique yi tey day génn nga dëkk bi duñu lekk bu duñu génnal dëkk bi duñu tal bu duñu xalab la ci àll bi waaw waaw de yaa ngi nii wan sax am ka dem nañ la bàyyi fii imma benn tey nag ah, rawdatun min riyaadi jinaan benn nga jiitaloon lu baax nga fekk fi aljana waaw waaw nga fekk fi aljana de aw wala boog xufratun muy pax min xufari niiraan ci goxu safara yàlla nañ ci dégg doy ñu fëgg seen loxo waaw waaw ñu ngi fëgg seen loxo di dellu yàlla delloo sa bakkan ci yow nga ne bërëb waaw toog yaa ngi dégg dàll yaa ngay dem te gisatoo leen waaw nga xam ne tey day dëkk néew nga waaw ni nga doon jaale jee te ñu jaale la ni nga doon jaxalee te ñu jaxale jaxaleel noonu la sambu bu bu feeñatee ci mbedd bi keneen moo ko sol sa mbaxana bi buñ ko séenatee ci bopp keneen la sa dàll yi buñ ko bu doxee ci tànk keneen la sa armoire bi doo ko laalati sa télé bi dooto ko xoolati sa vogman bi ah déedéet sa sa kele bi déedéet ordinateur bi dooto yëngooti moom étage bi wàcc nga ko dootoo ko yéegati kër gi génn nga ko dootoo fi duggati alal gi nekkoon ci banque bi ah dootoo ko génnati keneen moo koy génnee waaw te balaa mu koy jot ñu tibb ci dara daal di neexalaate waaw waaw waaw waaw waaw nii rek waaw waaw bu boobaa nga dégg tànk yaa ngi dem te yow gisatoo leen waaw waaw nga xam ne tey day ñu ngi lay jaxal tey néew nga tey jeex ci àddina nag kullu nafsin zaa'iqatul mawti kullu nafsin zaa'iqatul mawti kullu man alayha faanin kullu shay'in haalikun illa wajha ñett kullu yooyu du bàyyi kenn waaw waaw dana leen dikkee dana ma dikkee ay na man shaadu wa shaadu wa banaw ala ñu doon tabax jiite ay étage anañu waaw waaw fa kayfa tarju waaw fa kayfa tarju najaata min sharafin lam tandu minu kisaa wala dara kayfa tarju najaata min sharafin lam tandu minu kisaa wala dara lam yan bi minu gisa wala dara ah, waaw oh, nag ngay muccee ci dee buur yi gënoon a mag ci àdduna gi na wàcc leen ana firawna ana daawuda ana suleymaan adama idrisa ana ñu nuuhun saalihun ana ñu huudun ana ibrahim ana ismail ana ishaq ana yaquba ana yusuf ana ayub ana suaybu وإبراهيم لوط زكريا يحيى انا سليمان داود انا موسى هارون إلياس إلياس ذي الكبل انا سيدنا عيسى روح الله ابن مريم انا خير خلق الله محمد رسول الله أنا من كبار وسلطان الأولياء شعب قادر جيلاني بني بغداد من كبار وأبو العباس Ahmad bun Mouhamed bun Muxtaar Asaalmi Tijaani Ahmad Tijaan Chérif demal Faas waaw Bambala fa la nekk ana Aboubacar ana Omar ana Ousmane ana jigéen yu baax yi Asiyatu bintu Mazahim ana yaay Aïcha waaw mi ngi ci bàmmeel tey ana yaay Xadiija mi ngi ci bàmmeel tey ana Fatimatu Zahra al Huseyn al Hasan ñi ñëpp ñu ngi ci biir bàmmeel tey waaw man la muy mut aha waaw mi ngi noonu la kon di des kon lu maa ngi noonu la waaw am ñaari malayka daanu ci péeru waaw fi penku gën a sori seen bët yi la ñuy xottee suuf si waaw waaw nun daraan nun daraan wala xottee yoon moom la ñuy xottee yoon ba de waaw noonu la xottee ñu ñëw sa bàmmeel seen xef a koy sot xef euh, dagg seen bët yi moo gën a xonk waaw waaw jant buy génn ci suba Wow, jant bi génn suba wow wow wow seen sen yi moo gën a riir asamaan suy dënn bu ñëwee ci yow nee na buka rabbuka wa man nabiyuka wa ma diinuka wa ma xiblatuka wa ma Wow, wa man kaanu wa man rabbuka kan masa sa borom wa man nabiyuka kan masa sa mencuri, bi wa ma diinuka ana lan mooy sa diina wa ma xiblatuka fan sa awma dalilu kan awma mooy sa tegtal waaw waaw mooy sa tegtal de waaw man kaanu xewaaru ana ñoom ñoo doon sa mbokk boo dee jullit waaw waaw na nga am wëccu waaw nga ne rabbi sama borom mooy yàlla muhammad nabi muhammad mooy sama yonent te mooy borom tànt bi jërëjëfati yéen ñi ko dokkal waaw waaw décoration bi rafet na déwén yàlla dàq bi seen dund yàlla gën a taaru ci barke borom guddi gi yaa rabbi waaw sagal ngeen ma yàlla yàlla sagal leen waaw waaw waaw waaw ñan nga sa lu doon sa diine lislaam fu doon sa xibla kaaba gi la doon sa tegtal alquran waaw waaw ñan nga sa mbokk ah, mooy julli di waaye bu dee yii fér nga ah, buñ ne mën naa nga tiit na antuma rabbi ñaar yéen sama yàlla waaw ah, kooku munkar la ak nakiir waaye boo dee jullit doo gis munkar ak nakir yaa ngi gis bashir ak mubashir wa yàlla yàlla wan nga nga la waaw ñu jël kayit ba waaw daal di bind li nga wax yëpp takk ko sa baat wa kulla insanin alzamna taayiba fi unuqihi waaw bu yowmal qiyaamate waaw li nga waxoon ci bàmmeel ñu ngi doon yaa ko waxoon lépp bind nañ ko waaw waaw kon nañu bàyyi xel ci bés boobu la wattaqu wattaqu wattaqu wattaqu yawman turja'una fihi ila allah wattaqu nañu moytu aaya boobu moom mu jawaati ci alquran juróom-ñaari fan moo ci dëgg Seydina Muhammad faatu wattaqu wattaqu na ngeen moytu ci def tere yi ngeen moytu di bàyyi ndigal yi wattaqu na ngeen def ndigal yi kay wattaqu na ngeen bàyyi tere yi kay ah yow man bés a ngi dikk turja'una fii ilallah ah bés boobu la ci ngeen di tàggu àddina dem àllaaxira yàlla nañ fekk ci njub yaa rabbi waaw. waaw waaw waaw waaw ñu teg ay ñooy bu ñu la laajee ba dem waaw fii ak ñett fan nga néewi ci biir bàmmeel waaw boo delloo ci bàmmeel ba da ngay fekk fett na biir bi néewi na butit ya néewi na kërandoom ya waaw ya res ya gàddaama ya wextan ya lépp néewi na ci biiram nga gis bàmmeel bi fett waaw waaw moo taxoon mag ngi di ñaan yàlla bi su ñetteel ba bisi juróom-ñaareel ga waaw siddi di tàmbalee bàyyi caas yi caas yi di bàyyi ndawal gi ndawal gi di bàyyi yax bi waaw moo taxoon mag ñi def juróom-ñaari fan waaw ñeent fukki fan bi waaw dajoor ci lay bàyyee yeel yeel ci lay bàyyee óom óom ci lay bàyyee lupp waaw lupp ci lay bàyyee yàqu waaw pooj pooj ci lay bàyyee ndigg waaw ndigg ci lay bàyyee mbagg mbagg ci lay bàyyee loos loos ci lay bàyyee përëg loolu nag ci lay bàyyee conc conc ci lay bàyyee xasab xasab ci lay bàyyee tëkku jara tëkku jara ci lay bàyyee tenq tenq bàyyi baaraani waaw waaw naq bàyyi na biir biir bàyyi na dënn dënn bàyyi na baat waaw bàyyi na bopp waaw bët ba peer na waaw waaw ba si eh, tuñ yëpp dagg na sax dugg na sax bi bët nag moo ko neex moom lay lekk dem na ci bët bi sax bi nopp moo ko neex dem ci nopp ba sax bi làmmiñ moo ko neex sax bi tuñ moo ko neex sax bi siiñ moo ko neex sax bi bëli moo ko neex pax bi sax bi tux moo ko moom sax bi li mu bëgg mooy xëtër bi gàddaama waaw waaw bi butit waaw bi awra la bëgg bi der la bëgg bi ndawal la bëgg ñuy lekk lekk bu lekkee ba jeex balaa muy dee mu seeti feneen waaw amatul làmmiñ waaw mu dox ne naa seeti bakkan fekk bi doon lekk bakkan tam jeex na muy seeti bi lekk ci làmmiñ ñu daje ñoom ñaar ñu lekkante ko ëpp doole nga lekk sa morom bu fa jógee mi ngi jëm ci bët sax bi nekkoon ci bët jeexal na bët waaw waaw mi ngi jëm ci bakkan mu daje bi jóge ci bakkan ku mun sa morom daal di lekk sax bi ci yuur waa ci jëm ci nopp jeexal na yuur kële jeexal na nopp waaw ñu daje ku mun sa morom daal di lekk nii rek ba des benn waaw ah, moom mu dee ci biir bàmmeel bi ah, waaw waaw bu yombal xiyaamatee yàlla ne la kun waaw ah, fa yakunu mu daal di nekk rek nga jóg jëm yombal xiyaamati waaw waaw xasri waaw waaw yàlla yàlla sàmm ñu yaa rabbi waaw lii day waaw delloo leen ni ci yàlla waaw lii day du bésu yàgg du bu si sël àddina gi wayul wéyul yàggul dogoo bàyyi leen naayoo tuddante leen sagalante leen suturante leen balante leen waaw waaw am na ñoo xam ne ne boo leen dugaloon banque mondiale du ñu génnee dërëm am na yoo ne boo leen dugaloon ci kaaba gi du ñu génn njub am na yoo xam ne bu ñu demoon ci géej di rooti sax dañu fekk géej nacc na yooyu am na ci biir doomi aadama yi ñoo ñu maalu seen mbir nit ku bon ñooñu le boo leen jegeñee ràmm la de da ngay ràmm ni moom aji ràmm boo ko moytuwul nga jël jàngoro googu la waaye aji yàqutam boo ko moytoo mu yàqal la ku la ñi la nawoon dootuñ la nawlooti ñi la bëggoon dootuñ la bëggati ñi la la fongati yàlla yàlla musal ci loolu di jaay Seydina Muhammad waaw yàlla Muhammad bi gën a Madina waaw ndeke pàkk boobu gëléem bi dal ñaari xale ñoo ko moom moom te mooy Sahl ak Suhaylu seen baay mooy Amru waaw ñu ngi bokkoon ci Lansaar yow ci mo leen tuddee sar mo ñu ko dimbalé ñu ko gatalu waaw waaw waaw ba nga waxtu yi wàccee nekk bagaas yi am nako ko jël gogu ñu tuddee waa turam deug deug moy khalid bin zaid mu naan ko abu ayyub al ansar moy dakantalam abu ayyub al Ansar waaye turam deug deug moy Khalid bin zaid mom mo jël bagage yonte bi daw yobbu ko waaw yow dina ana sama bagage eh, ana sama bagage yi ana sama bagage ana sama bagage ah ñu ne ko de jël na ko abu ayub mu ne ah de fu mu nekk waaw waaw bagage fu mu nekk waaw borom bagage yi fa lay nekk ci la demee dal ci kër gi abu ayuba al ansaari yi ah, waaw waaw kër ndeyu kër neegu ndeyu maamam la mu ne ko Mouhamed yéegal ci kaw étage bi man ma dëkk ci suuf ah kii moo oyofoon kii moo oyofoon waaw ah, mu ne daal déedéet mu ne déedéet waaw ah, déedéet man ci suuf laay nekk tey bu doon ñun la nga ne ndongo ndongaaral ci kaw ah nga ne ndongo ndongaaral ci kaw waaw ah, nit ki dangay ngay oyof waaw man tawaada alillaahi rafaahullah képp wàccee boppam te yàlla la ci jublu yàlla yëkkati ko ci kaw waaye ngay rëy rëy di dóor sa dënn man la man la ah yow la toogal léegi te sa ndigg bi daal di moo ko xam ngeen moo ko mooy ni arc di mel mooy xala waaw waaw ah benn bés nag yowante baax na ci suuf waa ji dëkk ci kaw muy tàngal ndox ci njël ngir sangu ji waaw ah, ndox ma daal di tuuru étage bu njëkk ay dénk lañ doon tegante comme boo moom dara ni mu mel ay madrier ndox ma di toq waa ji ragal mu toq ci ko Seydina Muhammad mu jël yërëm yëpp daal ko ci napp bu bës mu yenu yëre yooyu ni Muhammad maa ngi lay ñaan na nga dëkk ci kaw démb ndox dafa tuuru ma ragal mu roogaat sa kaw ne samay réew ci lim na te dëkk bi saabu yombul dooma dimbal ngir jëmm bi tax yaa jëmm ji la yebal di yàlla yéegal ci kaw yonte yàlla Muhammad ci la demee ci kaw bañ tabaxee jàkka ja waaw waaw bañ tabaxee jumaa waaw defal ko benn bunt defal ko kër waaw ñett bunt la benn bunt la mi ubbeeku ci biir këram waaw ñu defal yaay Aysa kër waaw ak ku ñu dee sawdatu bint abi sama waaw waaw kooku kooku mooy mag bi mu jël gannaaw xadija waaye xale bi mu jël gannaaw yaay xadija mooy yaay Aïcha Aïcha ndaw la woon ba di wàcc liggéey booba mi ngi ci fukki at ak juróom-ñett waaw soxna su ndaw la woon kon ñi yàlla dénk soxna yu ndaw waaw nañ leen muñal xale bu tudd xale bu tudd foog mu bajant waaw ñu ñu ràññee xam ne fa nga toll ba denc ko bu fa tolloon doo ko tere waaw waaw ñu yërëm leen ñu yërëm leen nañu lekk ba regg nañu naan ba mandi waaw yàlla ko yàlla yombal yaa rabbi bañ tabaxee këram ba waaw waaw ci la toxoo foofu la ñu defal ko minbar minbar ba nag ci la doon xutba waaw yàgg ni taxaw di xutba ba mu demee ci kanam benn jigéen bu ñu tuddee nu ba moo ne Muhammad toqi na léegi taxaw di ñu waxal yàlla rek du toog taxaw nañ ko defal minbar kooku moo dund ci xaalisu boppam daal di jox law bay ñu yattal ko benn min ba jigéen boobu yàlla ko yàlla fay yaara bi waaw yàlla yàlla taas ci barkeem yonte yàlla muhammad alquran tàmbali di wàcce waaw waaw alquran di wàcce ni ñu di dugg fii diin lay afwaajam ci la bindanteeg yahudi aw leetar du ma leen xeex bu leen ma xeex du ma dimbale ku leen di xeex waaw waaw waaw waaw waaw yéen bu leen dimbale ku may xeex de waaw waaw yahudi mujj nañoo wor yahudi mujj nañoo wor yàlla ci alquran nee na ki gën a bañ jullit ci àddina bi mooy yahud wala tajidanna ashadda an-naasi adawa lilladina amanu al yahuda walladina ashraku ah waaw waaw waaw waaw yahud moo gën a bañ jullit waaw gisoo ba xeex bi xëyee jëpp ko sobu ex Yougoslavie waaw Israël dafa doon jox ngànnaay foofu la nga doon rey jullit dafa leen doon jaay ngànnaay même jullit yi ñuy rey ci Arakan ci Myanmar nee bu leen kenn jaay ngànnaay waaye moom dafa leen di jaay yàlla yàlla musal ci seen fitna yaa rabbi bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi waaw waaw ci la muhammad nekk ca kër gi alquran di muy waare e, ndëkk dëkk bi am na naafeq ñetti téeméeru góor ñëpp ay naafeq lañu ak juróom ñaar jigéen dëkk bi day bëri na naafeq lool kilifaay naafeq yi mooy abdullahi bun ubay bun salul naafeq baaxul yàlla yàlla musal ci naafeq bu duggee ci diggante jëkkër ak jabar daañu bàyyante bu duggee ci diggante baay ak doom danañu bàyyante bu duggee ci diggante doom ak yaay danañu bàyyante ni yaay ak jarbaar bàyyi tax ak doom xarit ak xarit soppe ak dana leen di kalli kalli di leen di wangi wangi waaw waaw ba ngeen bàyyi topp yàlla de yàlla yàlla musal ci iblis waaw seytaane jinne nag waaw moytu ko yomb na boo jàppee ba sell wala nga ne auzu billahi mina sheytaan nga mucc ci waaye seytaane nit boo ne bisimilah mu ne alhamdulilah waaw nooy muccee ci kooku boo génnee xam na ko boo duggee xam na ko kon na ngeen na ngeen di musu ci seytaane waaw nañu maandu lool lool lool waaw lu nekk waaw gëstu yenn yi gënul dana gëstu yenn gëstu yi bu ne fàng ci biti waaw musiba lay waaw yàlla boo gisee mu def guddi soloo tax waaw tiiñalante gi Eh, nañ ko wañ ci la dëkkaale di neexee waaw eh, baayam yaayam jabaram jëkkëram sëtam jarbaatam nijaayam doo wax sa bos déedéet bosam rek boo paree bosam ngeen jëm ci bosi keneen waa kay alhamdulilah waaw loolu amee ba ñu demee la ba yoon ci yàlla tàmbalee am du dal waaw waaw maa loolu du xew ci la xare badal xare badar ak bu nekk ñu koy magal maa ngi sant borom télévision bi te mooy ah, ah, dakar dakar tv international démb gis naa badar bi yëpp teg na ko télé bi yëpp seetaan naa ko te man musuma gis sama bopp ci écran démb laa soo ko gis loolu démb lañ ma andil ay jumtukaay boo ma gis loolu xew yàlla yàlla fay leen yàlla guddal seen fan yàlla yàlla def ngeen raw seen maas yi ni oo rawee ci biir gan yi yàlla ngeen rawee noonu ci biir télé yi waaw jaa ngeen te bu leen wàccagum waaw badar nag ci la xewee ci at ak genn wàll ci weeri koor wallahi julli di ñetti téeméer ak fukk ak ñett kii fii dem nañ ci junni dégg ngeen badar xam ngeen ci lu yaatu yàlla dénk Seydina Mohamed ndam mu jàpp ñoom juróom-ñaar fukk juróom-ñaar fukki dee waaw ca ñetteeli at ba waaw ñu ñëwaat song si ko mooy uhud uhud benn doj la ca màkk képp ku aji màkk da dem foofu dem ziyaare waaw waaw bàmmeelu waaw sang bu tedd gi te Hamza ba ñuy dem ci uhud nag yonent yi buggul woon génn defal nañu toog fii bu ñu duggee ci dëkk bi ñu seet ni ñuy ni leen di canaliser jëflante ñoom am ñu ko topp dañuy dem dañuy dem dañuy dem dañuy dem waaw waaw ah ba yow ci yàlla Muhammad daal di dugg daal di sol kaskam waaw waaw def kaalaam jël jaasam génn ñu daal di rëccu ah, déedéet ah mën a dëkk ah man soldaar yàlla laa bu ma xasee sol kenn du ma ko sumbi mu xanaa ma dee wala yàlla mu dogal mu dogal ci man waaw moo tax militaire noonu la rek ordre daal di ko exécuté waaw yoon ci yàlla Muhammad ci la génnee ñu topp ko ba ñuy départ junni nit lañ woon waaye ba ñu demee naa fekk yi daal di yolleeku dem seen yoon kéeféer yi nag ñoom dem nañ ba ci eh, ñetti junni eh, doole yemaatul waaye yoon ci yàlla Muhammad ku xam pala guerre la mu ne doj bii te mooy uut waaw yow jubay bi yéegal foofa ah, waaw waaw eh, Abdullahi yow kii jubay yéegal foofa Zubayr bun awaam yéegal foofa la yore leen seen fett ngeen aar suñu gannaaw waaw bu leen wàcc mukk bu ñu gañee ak bu ñu gañee bu leen wàcc ci kaw ku ngeen gis mu bëgg a ñëw ci ginnaaw na ngeen ko yàllax waaw na ngeen ko yàllax waaw waaw ba ñu tàmbalee combat bi rek tàmbali dóor tucc tucc tucc tucc ñaar fukki ak ñett waaw waaw ñaar ak ñett de waaw amee waa jullit daal di kontaan tàmbale di naagu moo tax bu leen naagu mu waaw ku naagu daagu ku daagu ñu raw la waaw waaw ku daagu ñu raw la yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw waaw sang waay njëkk yeeg waay mujj yi waaw waaw moom yonent yàlla muhammad ci la taxawee yëgul rek ña nekkoon ci kaw doj ba daal di bàyyi ay ndigalam daal di wàcc ba booba Xaalid bun Walid moom tuubagul waaw waaw booba tuubagul ak Ikrimatu bun yi Jahl booba tuubagul ci la ñu dawee rek ci kaw ba ñenn ñenn ñi fa def ñu rey leen dañoo dóor julli di keroog dañu daw moo tax moo déggee gàmmkat yi di gàmm naan gàññe nga ci Badar gàññe nga ci Uhud gàññe nga ci Hunayn déedéet Hunayn kay dañ koo gane waaw waaw benn waaye bu ñu dee Ibnu Qumayya mu gis yonent baa ngi taxaw moom kenn boobu gars yi daw nañu keroog ñëpp daw nañu waaw waaw waaw ci la tàllale fettam ne fett bii day tey ma dóor ko ci dënn Muhammad ñu may tagg bi àddina bi jeex tagg boo xam ne dootul daggati mukk waaw waaw am na ku ñu dee mas abul umayr mooy sëriñ bi yonent yàlla Muhammad njëkk a yebal mu dem Medina ngir mu jàngale alquran kooku xam ne fett kenn mënu ko téye mu tëb rek tàllal dënnam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 oncour binniwul defe na ma yow sang bi yow yonante bi mbaa sama jël bi gaañu la yonante na ko déedéet fa moo idnal janna suñu rendez mooy aljana ci yàlla suñu rendez mooy aljana waaw waaw yonante bi ci lañ ko dóoree pa tapparka ba bi daal di not ci biir yaramam ay ba ñu reewoom mooy ba ñu nekk ci kanam ñu daal di damm sallallahu alayhi wa sallam yonante yàlla muhammad daal di xawee ko waaw waaw daal di xawee ko waaw waaw jigéen boo mott doon bokk na ci ñu daw ñëw daal di yëkkati Seydina Muhammad waaw waaw yonent bi gestu daal di yem ci Saadu bun Muaz waaw ak Saadu bun Ubaada waaw ñaari Saadu yooyu la waaw ñu dimbale ko mu taxaw waaw waaw waaw waaw casque la bañ ko dindee boo gisee ni ndere ni deret bi sayee lii dal na Muhammad kon ñun lan lañ bëggati ah ay bañam damm na ñu dóor ko ba casque bi nokk ci boppam sallallahu alayhi wa sallam bañ ko dindee kawar gi daal di dagg pax bi daal di sàddi deret sallallahu alayhi wa ah, mu daal ne woo oh, rey naa Muhammad rey naa Muhammad ñëpp daal di daw ne lu ñuy wutati ki yàlla yónni woon dee na waaw ah, kon kay nañu dellu ci dëkk bi waaw ah, waaw waaw waaw Muhammad gestu daal di yem ci doomi bàjjenam te muy Zubayr bun Awaam mu ne ko yow boo demee la wax sama bàjjen ne Muhammad bàyyi naa ko àll ba ndeysaan mbokk daal di yëngu mu ñëw ci moom waaw jël boppam daal di ko wéer ci bopp Seydina Muhammad waaw mu kafa moom ne ko waaye dag maa gëj a yuppil kon dégg nañ kàddu gi kon diggante doomi bàjjen doomu nijaay buñ ko fi jëlee suñuy réalité la sama doomi nijaay la bàyyi leen nañu kaf sama doomi bàjjen la bàyyi leen ñu kaf waxuma nag ay góor jigéen di tàppante day làmb naan ak nangam ak nangam déedéet loolu moom lislaam gërëma ko déedéet bu leen def loolu euh, ci ci kaf kese mun na nekk waaw yonent yàlla Muhammad dafa doon kaf waaw bu doy bàjjanam di daf ko ne doo dem ci kër gi nga raas sama tànk soxna yi kooku daal di ñëwee ne ko ñoom koy ñooy raas sama tànk waaye man dama ko raas sallallahu alayhi wa sallam daal na kafe noonu la waaw doomi bàjjanam waaw balaa mu koy takk te mooy Zaynab bintu Jahsh bu ñëwoon ci kër gi seet si ko mu ne ko ah Zeynab mu ne ko waaw mu ne ko Xadijatu mu ngi ci kër gi waaw ah, demal woote ndax dañoo xaar tànkam doo ko létt waaw ah, doo ko maar ah, waaw kooku daal di xëyee ne ko moom koy mooy moom may defal loola la lii dafa rafet waaw kalante kii jóob la kii njaay la fitna du fa am kii jàllo la kii bala kii jàllo la kii ndaw la kii jàllo la kii jaxate la waaw waaw kii konaare la kii kulibali la kii konaate la Euh, waaw kii euh, waaw naka noonu askan bu nekk kii juuf la kii fay la lii dafa am kii xaal pulaar la waaw kii xaal pulaar la kii séeréer la dañuy kalante kii joolaa la kii xaal pulaar dañuy kii bambara la kii sarax la dañuy kalante lii la Afrique amoon lii dafa rafetoon ci Afrique ki ko andi mooy Kanka Moussa Kanka Moussa moo def loolu rek yàlla ko yàlla fay yaa rabbi même goro gi goro bi ñu yóbbu ci tàkk moom moo ko def moom kanta Moussa waaw waaw waaw incha allah taala dinañ ci del siwaat incha allah waaw waaw kal baax na lool ci la yoon ci yàlla Muhammad gestoo ci Zubayr waaw ah, bun awaam yaaye mooy safiyatu ak Abdoulaye ah, Abdul Mutalib moo leen jur mu ne ko boo demee kër ga ñeme ngaa ne sama bàjjen ne Muhammad def na àll ah mu mu daal di ñëw wéer boppam ci boppu Muhammad waaw ñoom ñaañee ñu muun ah waaw waaw waaw waaw mu ko da nga maa a yuppil ah da nga ah, lii day xew na foofu la ci dund Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndeysaan kawe rey nañ di juróom ñaar fukki nit waaw ah, ci la yonent yàlla Muhammad daanoo jël la mu métti boobale ñu bëgg daw yàlla wa ma muhammadun illa rasulun qad xalat min qabli rusul afa in maata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqabihi falan yadurra llaaha shay'an wa sayajzi llaahu shaakiriin waaw yàlla ne na Muhammad maa ko yónni ndaw la waaw bu dee wala ñu rey ko day tax ngeen bàyyi diina gi ah déedéet kuy jaamu yàlla yàlla moom du musa dee waaye kuy jaamu Muhammad bu deewul tey dana musa dee rek kon jaamu leen yàlla ngeen bàyyi caaxaan yooyu la waaw waaw waaw waaw lii de nii la xewee ndeysaan Muhammad ñu ngi ko lëng mi ngi ñëwoon Madina deret baa ngi naaj ci fu nekk ci yowante bi keroog ku ñu tuddee Wahshi fala fala boomee Hamza waaw Hamza ak yowante bi buñ demee ci wàllu geño Hamza baay bu ndax la baay bu ndaw la ci yonante yi mooy baay tax ndax Hamza ak Abdullahi seen baay mooy Abdul Muttalib te Abdullahi moo jur Muhammad kon buñ demee ci wàllu gaño Hamza baay bu ndaw la ci Seydina Muhammad waaye buñ demee néegu ndey seen ñaari maam ñoo bokk ndeeg baay Wahba ak Wuhaybu naka Hasan ak Huseynu waaw waaw Wahba moo jur Aminata mu jur Muhammad Wuhaybu moo jur xaalata moo jur xaalata xaalata daal di jur Hamza ndeysaan keroog la ñu jam Hamza mu daanu ba mu daanoo waaw waaw ba daanoo waaw ci la ñu xottee biiram génnee res jox ko hind waaw hind mooy jabar abu sufiyaan mu yëy ko mënu ko won mu buusu ko ñu dagg ay noppam dagg ay bakkanam yonent bi tiim ko ni xée yow yàlla yow yàlla am naa tiis tey sama baay tax bii seetal yow yàlla nuñ ko def yàlla na ko waaw laysa laka min amri shay'un samay mbir bàyyee ma ko kii la yoon Hamza mujj naa tuub dem moom moo rey Moussa Moussa Lamadoul Kazzab naa fekk bu rëy bi moo tax moo doon bàkku mu ne ba ma nekkee yéefee maa reyoon ko gën a baax waaye ba ma nekkee jullit maa rey ko gën a yées waaw waaw yàlla moom moom ay mbiram kon na ngeen diw ko baax diw ko bon am na fu nekkoon mbalit wala ba nekk nekk jàkka am na fu nekkoon sën wala ba nekk nekk juma waaw na bàyyi xel ci loolu wala kenn ku nekk bu la bàyyee sa jànk néeg kenn du yéegal bosam dimbale ko mu yéegal bosam mu dimbalal nga yéegal sa bopp l'islam loolu la xam waaw waaw innamal usri yusan lu jafeñ rëy rëy bànneex dana ko wutu yombal waaw ah, lu lu jafeñ rëy rëy waaw ah, waaw ñaari bànneex dana ko wutu de waaw waaw kama ata alhamad al adnani waaw waaw ah, ba lii amee waaw bi li am moom ngeen kokkali ah mooy mbellee boo nekkoon yonent lii du la dal mbas ma la sonnal nga ñu ah, kokkali baaxul de na ngeen ñaan yàlla bu leen kenn mun ndokk bu leen gën kokkali waaw ah, moo tax boo demee ah, ku baax ki di Maolana Cheikh Ibrahima Niass mi ngi naan yow yàlla wala darani sarfu zamani wala ara shamatata aadai wa sua qadai wala darani makun wa faqun wala rina amutu ahya abda basamai bëgg naa lu ma ko tudd tey de ah, dama ko min lool lii di Mawlana Cheikh Ibrahima Niass lii di sëñ Fallou ñaar ñi dama leen miin miin boo xam ne sama ngoone yëpp ci seen war laa ko def waaw ah, liñ ko doon ma toogee ne jàkk de mel ni ñoom laay gis wallahi ñoom laay gis sax waaw ah, bàyyi nii la doon ah, ba duggee ci tànt bi bàyyi du ne sama sa ba bët sa ñaanal doomu aadama yeeyu leen waaye nekk juróom tànt waaw ah, waaw di di encaissé xaalis yi nag ah, <laughs> déedéet waaw ah, yooyu man xaw ma ko waaw yàlla yàlla fay yàlla yàlla bi xala mu ñi koy def waaye moo ngi di jàjj dajale ay million ngi nit di leen wax ay waxu caaxaan rek déedéet baaxul maa ngi nuyu préfet maa ngi nuyu gouverneur déedéet ah déedéet déedéet déedéet ay kilifa lañ nañ leen normal waaye nag gàmmu yéen maa ngi ceeb bi ngeen andi fataay bi ngeen defar akara bi ngeen andi seen pétrole bi est-ce que jar na loolu lii wayaan la wayaan la yal na yàlla mosul ci loolu yal na yàlla dimbale yàlla buñ bokk ci kuréel boogale yàlla di zaahir ak baatin yàlla may ñu ba duñu jël alalu kenn waaw waaw yàlla may ñu lijaaba may ñu qabuul may ñu tawfiq may ñu tayseer waaw waaw maa ngi leen di maa ngi leen di ci yàlla maa ngi leen di woo ci Seydina Muhammad na ngeen gëm mbooleen yàlla yi bu Tuubaa xewlee bu kenn des bu Tiwaawoon xewlee bu kenn des waaw bu Ñaseen xewlee bu kenn des Madina Baay noonu waaw waaw Maka Kulibanta Bangeer Taslima Mahmouda Daaru Salaam waaw waaw waaw ca Gangel waaw waaw ca Medina Gunaas na ngeen def nit yàlla yëpp ñuy benn waaw waaw na ngeen bëgg ñëpp waaw na ngeen leen di tudd tudd bu bëri bëri inda zikri saalihiin tatanazalu rahmaat saa su ñuy ñu baax ñi xéewal yàlla dafay wàcc waaw tey de xéewal yàlla wàcc na fi lool yàlla yàlla taas seen mbaar set donc na ngeen bëggante na ngeen soppante na ngeen sakalante na ngeen sutarante yëngu-yëngu yi la ca baax jël leen ko waaw la ca bon bàyyi leen ko tukki yi ngeen di yem ci gaal yi ah, président def na jàmbaar yoon na avion mu jëlee leen na leen jox liggéey àll bi ni mu yaatoo nañ def ay château waaw xar yi def ay toolu dër waaw di béy réew di ko lekk waaw maa ngi jéebaane nguur gi nañ dimbale béykat yi la ñuy béy bu ñoree nañu téye lay jóge bitim réew ba ñu lekk li suñu béykat yi di béy doomu Maroc noonu la def waa Maroc lépp lu maamam di béy bu ñoree dañuy tere lu mel noonu ñëw donte du qualité bu yàggee mu nekk qualité waaye ñun li ñuy béy fii bu ñoree ñu jëlee leneen li daal di nëb kañ la ñuy am qualité nañu aar suñu koom-koomu réew nañu aar suñu koom-koomu réew na ngeen mooy sama poosa ngi nii poosa nguur gaa ngi nii bàyyi leen ko taxaw ci télé bi oto boo arrêté waaw bu dee oto jën la nga tàllal ko sa mbuus waaw lépp nga jën googu waaye ëllëg mu doon cancer sa biir seetal bu njëkk bu nit feebaree nga ñëw fekk sa jabar mu ngi ah ini francs nga yor te dafa laa lew nga bëggoon ko yóbbu dispensaire doo am loo jox njaboot gi am ku teew ah papa lii de sunguf la def ko ci ndox mu naan ko bu ko naanee mu ñàkk nelaw mu jóg ndax barke ba waaye tey nga détourné kees nga fajoo ko nga paas yóbbu ko Amérique du wér nga fay fa ay 5 millions nga ñëwaat waaw mu dee waaw dee na de yàlla wàcce feebar boobu ci doomam sanattu maa qaddamu wa asaarahum ah sanattu maa qaddamu wa asaarahum feebar bi yomb na bàyyi ba kër ga toj mu jaay say télé jaay say oto fajoo ko duñu wér bu leen def loolu papier bu ngeen mën a defal defal leen ko buy kayitu judd buy casier judiciaire certificat de bonne vie et lu ngeen mën a def def leen ko liggéey leen waaw li ngeen war a liggéey seen salaire la leen doy salaire bu barke du tële dara waaye boo doon am un milliard te barkewul xaba an mansuran day mel ni pënd rek na ngeen moytu bu ngeen moytoo yàlla dimbale leen maa ngi leen di ñaan ngeen gën a moytu ngeen moytu woon waaw ngeen gën a yokk laxasaay na ngeen moytu caaxaan benn nga am ci bànneex ëllëg mu beelal la safara déedéet maa ngi leen xale jigéen yi dal leen ñu ngi naan ñu ngi naan euh, waaw mariage précoce ah ne xale bu jigéen mu toll ci fukki at boo kenn maay sëy loi bi nangam loi bi nangam waaye defal loi boo xam ne dafa leen tere njaalo tamit yow tere woo njaalo ngay tere bu ñu bu ñu teel a sëy musiba daal kon nañ seetaan seetaan suñu loi waaw waaw sant naa leen gërëm naa leen hmm? Hmm? dëgër incha allah taala seeréer foofu bu si ba sutura alhamdulilah rabbil alamin damay ñëw ñaan ñaan yàlla ñu dàqaar ko ba saxaar bi dem déwén incha allah ah neexul wax de neexul am na ñoo xam ne duñ ko teewee déwén wallahi mënuma ci dara mënu leen ci dara góor a mi nii toog tey leen mu jëñoo saañ nga dootuma gisati dootuma gisati jigéen a ngi nii toog dootul dikkati saal dootuma gisati dootu dootu dootuma gisati waaw am na koo xam ne benn at moo ko dese waaw am na koo xam ne juróom moo ko dese am na koo xam ne benn weer moo ko dese am na koo xam ne oto moo ko rey am na koo xam ne ci teen lay daanu am na koo xam ne waaw dafay dafay lakk ba carbonisé waaw am na koo xam ne ci aw yoon lay daanu dee am na koo xam ne fetal moo koy rey am koo xam ne fett moo koy rey loolu yëpp mu ngi suñu biir fii waaw waaw mi ngi biir fii waaye maa ngi ñaan yow yàlla koy jël ci ñun yàlla na ko jël ci siraatu mustaqim maa ngi ñaan yàlla kër bu ñuy wàcc liggéey waaw yàlla na fekk yàlla topp ñu dara yaa rabbi yàlla mun na ko yàlla nañ ko yàlla defal yaa rabbi yàlla waaw na ngeen góorgóorlu waaw na ngeen dimbalante na ngeen xetlante ah, waaw daayira yi nag daayira yi daayira yi daayira yi paase na tey juróom fukki daayira dana yegg ci juróom benn fukki daayira sax waaw maa ngi leen di ñaan na ngeen def kees waxuma ngeen def kees di ma andil na ngeen am kees ku deele ngeen jël ci jox ko kuy ngeen jël ci jox waaw ah, waaw kuy dëj ngeen jël ci jox ko yenn jamono ngeen jënd si jaada waaw ah, ngeen yóbbu ko ci jàkka yi jënd satala yóbbu ko ci jàkka yi bu weeru koor jotee ngeen di def ndogu bu ngeen mun na def ndogu bu rëy jënd leen bay leen bisaab ngeen def ci suukar yóbbu jàkka ngeen bokk daal di ndogu kenn ku nekk dellu këram waaw ngeen di seeti góor yàlla yi seen dëkk yi na ngeen di jëmbat ay garab waaw daa yooyu loolu laa bëgg na di jëmbat ay garab na ngeen di bale seen i dëkk waaw na ngeen di defar seen kër ba mu rafet lu rafet ci jullit la gën a yell waaw lu rafet de ci jullit la gën a yell ngeen di def ay aay aay semaine bi kër ki semaine bi kër ki am na daayira bu ko tàmbali mooy jëli su rahmaan ci kaw la mooy doomu jolof yal na yàlla fay képp doomu jolof yal na yàlla bëri seen xéewal dikk ngeen ci jàmm yàlla ngeen de lu ci jàmm yàlla fay leen waaw waaye wàll ak méng tàmbali nañ ko incha allah maa ngi ñaan yàlla ren ma bëri sama tukki ci yéen waaye sama tukki néewoon na lool waaw waaye maa ngi ñaan yàlla daayira bu nekk ren ma dem seeti ko waxuma damay tàggu de am na beneen sëñ bi de bu joom dafa bëgg a tàgg kon ah allah damay digle rek dégg nañ ko waaw da ngeen góorgóorlu bu baax a baax xale yi nañu jàng góor jigéen mag ndaw bu leen xiiroo bu leen naayoo bu leen dogoo waaw lépp lu bon bu leen ko jegeñ lépp lu baax na ngeen ko jéem a fàggu yàlla yàlla fay yàlla yàlla yàlla fay yàlla di jaay Seydina Muhammad sallallahu wa sallam ma daal di zikar ñu yëkkati ko ci kaw zikar dooga la zikar la boo xam ne alhamdulilahi rabbil alamin waaw dana dana fiixal xol dana wéral yaram dana andi naataange dana yokk teraanga te mooy loolu de Cheikh Abdou Khadre Jeylani sama feebar bu métti bu ma feebaroon fii Ah, waaw waaw moo ma ko baaxee woon de waaw ah, moo tax seetu ma woy ba damm na wala dammul man niñ ma ko joxee rek laa koy woyee ba léegi waaw ah, waaw fu mu damm yi noonu laa koy waxee rek ndax noonu la ma ko góor yàlla boobu joxee kon ñu ànd yéen ñëpp ngeen wuyu soog a ñaan maa ngi leen di ñaan nag bâche bii niñ ko takkee balaa ñu naan tàkkusaan na lépp yemb bi dellu fa mbaw woon waaw fajug aajo mi ngi ci de ci biir ak biti fajug aajo mi ngi ci ci biir ak biti sant naa setu sant naa setu Cheikh Fanta Madi Haydara bi ci lim fi def poosu ndeyjoor ak poosu càmmoñ la ndax sama waajur bu jigéen nijaay moo Cheikh Fanta Madi Haydara gërëm naa euh, waa Mali njabooti Cheikh Ousmane Madani Haydara ah, yebal nañ fi nag de yal na yàlla fay leen yàlla yàlla dëgëral leen waaw nag bu rëy la ci man ndax réew ba réew ngay borom mbooloo boo xam ne ñëpp ñoo la bëgg seet ku nekk fi di taalibe nga yónnee ko lu mel ni ngir mbokk waaw yàlla yàlla fay leen yaa rabbi tànk yi ngeen dikkee ci jàmm salaam yàlla ngeen dellu ci jàmm salaam yaa rabbi waaw waaw yàlla yaa rabbi yàlla yàlla yàlla def loolu lu ñu somb yàlla nañ ko daaneel lu ñu sumb yàlla sotti lu ñu jéem yàlla antu lu ñu dogg yàlla mañ ci ndam yaa rabbi doom yang yàlla ñu tekki ada fi am di jàngoro yàlla nga delloo wér yaa rabbi yàlla nga delloo wér yaa rabbi yàlla nga delloo wér ya rabbi ya rabbi yang jàngoro yëpp yang na fañu waaw ñi ñàkk yàlla ñu am ñi ñàkk yàlla ñu am ñi ñàkk ñu am rabbi ñi am yàlla ñu gën a dolleeku da gën a rabbi na ngeen góorgóorlu bu baax a baax bu baax a nitu àddina yi bu ñu bu ñu jaxasañu waaw bu campagne dikkee ñu jox leen def seen photo jox leen casque waaw kenn ku ne ñu jënd la benn sandwich jox la 1000 francs dugal la ci ñaga ñaag bu jeexee bu faloo dootoo ko gisati da ngeen am ful la yéen it ngeen jéem a fal mu tàccul leen waaye seen dund yëpp ngeen nekk ci tàccu rek bu leen nangu loola le ba leen nangu loola le ñi gàmm woon yàlla na ko yàlla nangu ñi gàmm suba yàlla na ko yàlla nangu siyaare naa waa réew mi xalifa général yëpp waaw ca Touba sang bu tedd bi Cheikh Sidi ca Cherno, Cerno Bakar Bakar Sin, ah eh, ca Yoor Alaaji Abdoulaye eh, Cawlaay Cerno Haadi Hadi ca Ñaseen Ahmadou Tidiane Oumayma ca Medina Ba Cheikh Ahmadou Ahmad ca Cenaba Ahmadou Tidiane Seck waaw ca Medina Cerno Ahmad Tijani Ba Kumatu ma Lama ci làmmiñ olof yi naan boo limee juum déedéet boo limee doo mën a dajal te yow mi dafa fees tepp ci ay góor yàlla maa ngi ziyaara ñëpp maa ngi saafoo teg ku nekk kenn ku nekk sago mun lu yéen teg moom maa ngi koy ñaan yàlla sama protocole ñu may ma mën lu yéen teg yéen waaye ngeen def ndànk bañ a rek rek loo am na ñoo xam ne fii yëpp saafoontewu leen duñu mos a sant yàlla waa ngeen dala seen xel ñii ñëpp ay soppe lañu ñii ay soppe lañu Ah, góor ñi jigéen mag ñi ndaw góor ñi ma saafanteeg ñoom jigéen ñi nag ma yëkkati sama loxo rek eh, ñu defee noonu dégg nga allah taala ngeen bañ a buusante bousculade bi ngeen bàyyi ko foog naa dinaa joxe loxo benn benn bu ma protocole bi maye dinaa ko def sama ngeen xam ne sama sago eh, li may dund moom ak moom ak a xañ waaye bëgg naa leen sopp naa leen nawloo naa leen maa ngi leen di jógee maa ngi leen di toogee waaw waaw ngeen ngeen ngeen ma xiif loolu laay ñaan naan ba doy moo ma dàqal man ma naa mën a tekk ma feebar bay kuy kuy moo ma dàqal ma gis leen ngeen di feebar lii man maa ko ñaan yàlla waaw moo tax boo ma gisee rek ne sëñ bi du ko sawee fan yi kenn xamuloo ne man danaa gàmmo déedéet Cheikh Ibrahim ñu ngi jënd rek garab mi ngi ànd rek waaw du feebar ay la ci maqaama yàlla yi waaw lii yàlla du ko may kenn ooy sa yem nga gàmmo demoo ci gouverneur gàmmo demoo ci préfet gàmmo demoo ci président jëloo ceebu kenn jëloo enveloppe bi kenn yaag say am di jàmm kese yaag say taalibe kese yaag seen wóllare kese ah waxu mën amul ci réew mi de waaye déggaguma ko yàlla du may kenn ooy fal sa yem gërëm naa leen sant naa leen yal na yàlla defal leen jàmm ngeen dara seen xel ci man daara jotuma ñàkk ak yéen gi yéen laa nekk ci biir néeg bi incha allah taala sumb yi dafa rëy euh, foog ma jàkkaarloo borom subhanahu wa taala na ngeen xam ne bés bu may wàcc sama biir bàmmeel it waaw waaw maa ànd seen mbëggeel wallahi li may ñaan Cheikh Ibrahim ak i rakkam waaw euh, ma fi yàlla jëlee bu ma kenn patam patami nag ma bàyyi ba samay soppe yëpp ñëw nañ ma bàyyi bi samay am di jàmm yëpp ñëw nañu bàyyi samay wóllëre yi ñëw nañu bàyyi sama sope yi ñëw ngeen gunge ma euh, gunge ma sikar goo xam ne euh, malaykay asamaan yi dañu xam ne euh, am na ñoo xam ne fii yëpp saafoontewu leen dañu mos a sant yàlla waaw waaw ngeen dala seen xel ñii ñëpp ay soppe lañu ay soppe lañu góor ñi jigéen ñi mag ñeen ndaw góor ñi ma saafante ak ñoom jigéen ñi nag ma sama loxo rek euh, ñu defee noonu dégg nga incha allah taala ngeen bañ a buusante bousculade bi ngeen bàyyi ko foog naa dinaa joxe loxo benn benn bu ma protocole bi maye dinaa ko def sama mbokk gendarme yi buñ ma ko mayul nag ngeen xam ne sama sago euh, li may dund mo ak moom ak a xañ waaye bëgg naa leen sopp naa leen nawloo naa leen maa ngi leen di jógee maa ngi leen di toogee ngeen ngeen ngeen yàgg ma xiif loolu lay ñaan yàlla ngeen ngeen naan ba doyle moo ma dàqal man ma naan mën a tekk ma feebar bay kuy kuy moo ma dàqal ma gën ngeen di feebar lii man maa ko ñaan yàlla waaw moo tax boo ma gisee rek ne sëñ bi jam du ko sawee fan yi kenn xamoon ne man danaa gàmmo déedéet Cheikh Ibrahim ngi jënd garab ngi ànd <laughs> du feebar ay maqaama la ci maqaama yàlla yi waaw lii yàlla du ko may kenn ooy fal sa yem nga gàmmo demoo ci gouverneur gàmmo demoo ci préfet gàmmo demoo ci président jëloo ceebu kenn jëloo enveloppe bi kenn yaag say am di jàmm kese yaag say taalibe kese yaag seen wóllëre kese ah waxu ko yàlla du may kenn ooy fal sa yem gërëm naa leen tamtu naa leen yàlla yàlla defal leen jàmm yéen dara seen xel ci man dara jotuma ñàkk ak yéen gi yéen laa nekk ci biir néeg bi allah taala sumb yi dafa rëy euh, foog ma jàkkaarloo borom subhanahu wa taala na xam ne bés bu may wàcc sama biir bàmmeel it waaw waaw maa ngi ànd seen mbëggeel wallahi li may ñaan Cheikh Ibrahim ak i rakkam waaw euh, ma fi yàlla jëlee bu ma kenn patam patami nag ma bàyyi ba samay soppe yëpp ñëw nañ ma bàyyi bi samay am di jàmm yëpp ñëw nañu bàyyi samay wóllare yi ñëw nañu bàyyi sama soppe yi ñëw ngeen gunge ma euh, gunge ma sikar goo xam ne euh, malaykay asamaan yi dañu xam ne sopp